lekk ji dara ñoom nañ gis góor gi rek waaw buñ gisee góor gi jeex na waaw am na ñoo xam ne bu ñu saafoonte ak yow bu ñu sant yàlla mukk war nañ nga teg bët rek bëgguñu lekk bëgguñu naan yal na yàlla fay nañ seen yéen yaara bi xam mbiru weer bi nag weer ñetti rek moo koy gis weer ñetti rek moo koy gis benn ngay borom baatin boo génnee néeg bi ak boo génnul néeg bi yàlla wam la ko ñoom it bareetul wala ngay ko jàng xam-xamu biddew astronomie wala astrologie wala cosmologie wala cosmo cosmographie wala nga jël jumtukaay nga jël dara def sa bët nga gis yow nga sol la ne jàng alquran kii sol la beneen la ne gis weer wi nga ne bosom du dëgg ne amatul de waaye dafa tàmbalee rak danaa leen nettali dara balaa may lii mag turandoo Cheikh Ibrahim mooy Cheikh Ibrahima Konaté moom la yaayam yàlla nañ ko fekk aljana dafa doon gis ak baay dafa doon gis baay Cheikh al Islam gise yu bëree bëri te daawuñ dégg ci làkk baay arab lay làkk wala wolof góor gi moom dafi la doon làkk wala jula maa nekkoon seen diggante di jottali waaw maa nekkoon seen diggante di jottali ba may nekk diggante baay Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Ibrahima Konaté boobu mun maa jottali xanaa ñoo def mbóot ci man ñoo def secret ji ma mun a jottali ah am na benn cinéma bu nekk Kasnack Kaolack ñu ko tuddee Rio ah dañ ko tuddee cinéma moderne ki ko doon dawal taalibe maamu Cheikh Ibrahima la ñu ko tuddee Abdou Latif ñuy dem di di nuyu ji bàyyi ñu jël taxi ki ko doon dawal mu ngi tuddee Boy Pull këram mi ngi kar ci Kibel ba Abdou Latif nañ jaar marché dafa bëgg a jënd fiir bii jàpp janax dafa bëgg a jënd fiir bi jàpp janax ñu ne loo koy dooyoo mu ne keroog dafa siyaare si woon bàyyi mu gis janax ci néeg bi te ni mu jóoree ci néegam bi di bind ne kayit ak janax duñu ay xarit dafa bañ janax yi yàqal bàyyi waaye dafay jënd fiir ba demee jox ko bàyyi janax bu ci jaaraat fiir bi téye ko néegu bàyyi fiir mu dugal ko ci saagam ba ñëwee man ma toog turandoo Cheikh Ibrahima ma toog bàyyi toog moom bu bàyyi bu gisoon turandoo Cheikh Ibrahima dafay kontaan ndax bàyyi dafa bëggoon borom xam-xam ñuy jàmmalante ba mu paree jàmmalante ak moom dafa gëstu yëpp ci Abdou Abdou Latif ne ko Abdou Latif loolu nga jënd def sa saak da ko delloo janax buy bokk ak muus di lekk kooku ndax janax la waay allahu akbar yal na yàlla fay kilifa yi bàyyi ponkaloon bàyyi ngand la woon fiir bu nekk ci biir saak fekkoo bañ koy jënd nga wax loolu ñii ñooy borom baatin ñii luñ wax faye ko ba waaye ñi nga xam ne ay enveloppe lañ topp rek yal na yàlla musal gisuñu dara gisuñu dara déedéet boo delloo ci xam-xam dëgg-dëgg fii ak fukki at ci kanam weer dana feeñ ba def ñett fan kenn du ko gis dafa am lu ñu tuddee couche ozone couche bi dafa tàmbalee sonn gaz yi yéeg daf ko tàmbalee rappal toujours asamaan si dafay xiir waaw fii ak quelques décennies weer dana feeñ ba def ñett fan kenn ko mën a gis ak bët xanaa dañ koy gisee xam-xam rek wala nga gisee ko ay jumtukaay kon nañu maanu dellu ci ñu ko xam réew mi am jàmm téeméeru réew ak juróom ñeent fukki réew ak juróom ñëpp ñoo julleendoo aljuma ba mu des Sénégal boo demee dëkk bu ñu dem mel na naaw ca Philippines ci ginnaaw Indonésie ca gannaaw Jakarta ba Sénégal di nodd ci aljuma njël te lañ julli ñoom ngay wàcc si ñoom ba Dakar ci Bangladesh ñoom nodd ñaareel ci lañ julli bu Sénégal aljuma la ba tey ngay wàcc ba Téhéran capitalu Russie capitalu astaghfirullah Iran capitalu Iran ba Sénégal di sëlmal ci njël lañu julli ñoom ci bisu aljuma nga ñëw ba Soudan wala nga ñëw ba Jidda ah nga ñëw ba Jidda ñoom ñu daal di julli ci huit heures bu Sénégal jotee aljuma la nga ñëw Sénégal jant bi tolloo ñun dix heures ñu daal di julli nga passé Sénégal dem Washington ñoom ñu julli ci tisbaar karabu seconde chevron lañ may woo ci boori ci boori une heure deux heures ñu ngi di jóge ci jullikaay bi li aljuma la boo nee ba San Francisco Los Angeles ca wàllaa gën a amee ci mer ci océan Pacifique ñoom ñu julli boobu 80 bu Sénégal lii yëpp aljuma la Sénégal tëb ba samedi lii ban diina la 195 réew Sénégal doo nga benn jullit xanaa xanaa dañoo am beneen yàlla beneen yàlla bu dul yàlla xaadimu rasul beneen yàlla bu dul yàlla cheikh al islam beneen yàlla bu dul yàlla cheikh Umar Fuuti Taal waaw ah, beneen yàlla doo xam ne du yàlla Limaamu Laay diina gi buñ ko kafee buñ ko ngàll ngàlle fàttalekul keroog ba nga tëdd ci balankaar nga jaaxaan ci digg jàkka xalifa général kenn doo waliw kenn doo sëriñu kenn ki lay jullee li muy wax allahu akbar allahuma innahu abduka ibnu abdika ibnu amatika yàlla sa jaam kese ngi nii sa doomi jaam waaw sa doomi jéebéet kon nañ jiital yàlla eh, enveloppe yii nañ ko sànni waaw oto yu rafet buñ ko yàlla joxe nañ ko jël waaye ngi ñuy politique politique yi nañ yàlla gi nañ ko moytu yàlla xajul ci kenn buñ lay suuli yeew sa ñaari baaraamu dijj loxo yeew sa ñaari baaraamu digg tànk dugal witteen sa bët dugal witteen sa nopp sarse sa gémmiñ ba mu fees dugal sa awra dugal sa toogeekaay ngir balaa saw di génn balaa cabinet di génn ah foo jeex na caaxaan faa rek kon nañ dellu ci yàlla bés bii du lépp du wullu poon dana dikkee kenn ku nekk yàlla yàlla fay yàlla kon ñii ñoo doon baatin waaw Abdul Mutalib baatin boobu la ko yàlla woon mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna libni haza la shaanun waaw ah, sama sët bi day ëllëg cëram na nawee ci yàlla ba muhammad demee ba am juróom juróom ñettaar ah, waaw jëm fukki at ci la tàmbalee di sàmm sallallahu alayhi waaw ah, amul kenn ku yàlla yónni ci yonante bu dul nga jaar ci sàmm de boo mu nee sàmm ay jur ba gaañoo ci benn te jur amul xel bés boo taxoo di sàmm ay nit waaw te nit borom xel la waaw doo ci gaañ benn de doo ci gaañ benn moom yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu dee ba am fukki at ak juróom ñett waaw ci la tàmbalee commerce de waaw ci la tàmbalee commerce amee ñaar ci la ko yàlla wërsëgalee waaw soxna su baax soosal te mooy Xadijatu bintu Xuwaylid waaw yàlla yàlla fay Xadijatu Xadijatu jural na ko juróom juróom benn doom waaw ñeenti jigéen Zaynab waaw وصية أم كلثوم waaw Fatimatu Zahara waaw jigéen ña mooy Abdullahi mooy Qasim waaw da dégg ñu ne amoon doom bu tudd Tahir ak Tayyib mooy tur yooyu rek waaw ñenn la dañoo am ñaari tur naka ni pël di defee rek pël bu baay tuddee yaay tuddee maam tuddee arab tam noonu la mel waaw waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ba mu amee ñeent fukki at ci la ko yàlla yónnee waaw iqra ci la aaya boobu wàccee yaayul muzammil yaayul mudassir yaayul mudassir nubuwa la yaayul muzammil risaala la waaw yaayul mudassir moo ànd ak mbuub ga ko yaaw sol waaw yaayul muzammil mooy jógal nag nga nga jotal diina yàlla gi sallallahu alayhi wasallam waaw def na fukki at ñett màkk mi ngay woote rek ci bii fukki at ak ñett yooyu la <coughs> bakkaar bi neex na ma saqatee saqal moom moo ne saqatal bu mu neex la ndeysaan ñu fekkewaat ko ren ba mu waxaat ko ren yàlla nañu ko fekkewaat déwén lii luy neexal jotaay la samay xarit yi démb la damay ànd ak ñoom booba gànnaar sax aw ko waxatuma la ay oto fay dëkk baa nga fees oto tepp sant yàlla euh, man de jig ngeen ma xanaa man ma ñàkk leen a jig waaw euh, jig ngeen ma yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen yàlla bu yàlla def seen yaakaar waaw ci biir fukki atam ñaar yooyu la waaw waaw ci la xadijatu faatoo ñu denc ko ci xajuwul diggante xadijatu ak abu taalib damay bàyyi taxam <coughs> ci biir benn semaine la yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la demee Taif te ah, mooy Saqiif mu bugg a wut ndimbal foofale ñoom ñu daal di ko delloo def na ko lu toll ak weer di leen woo ci yàlla ñu xas Seydina Muhammad bu ñu xasee Seydina Muhammad ku la xasate mun ngaa muñ xas boobale ñu ngàññe ko waaw ñu doyadil ko jinne ci la ñu ci la ñu dugg ci lislaam wa istarafna ilayka nafarun jinni yastami'una quran فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي والله إلى قوم المنذرين jinne yi daal di tuub ci Seydina Muhammad bu jinne tuubee te duñu ay nit kon masa nit kon waaw des ca kër ga yore ay doomam ndeysaan ñu daal di fase Ruqiyatu daal di fase Ummu Kalsum ndeysaan këram daal ndóol Xadijatu faatu na waaw mi ngi tëdd ca bàmmeel ba Zeynab rek moo doon sëy yonent yàlla Muhammad moo maando xiif daal di dugg këram te yonent bi mënut a dem di lebi boor waaw ndax nee na boor boo ko deeyaalee waaw te fayoo ko sa ruuxu du yegg fi nga jëmoon nafsul mu'min moo allaqatun bi daynihaa hattaa yufdaanhaa jullit bu nekk sa bakkan dafa doon tayle ci sa boor waaw waaw doo jéggi siraat bu lu nga fay boor ba boo amul loo ko fayee ñu jël sa lu baax jox ko ko boo amatul lu baax waaw ñu jékki la borom daal na ko sipp yàlla nañ bu ngeen lebatee fay bor yi waaw waaw la fay fu la neex yóbbu waaw bàmmeel mi ngi lay xaar dañ ko fay bés bi nga xam ne alal amu fa salu baax la ñu jël waaw nañu nañu fay bo fay bor yi alalu nguur la alalu nguur moo gën a dangereux ngir alalu mbooloo la waaw waaw waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kër ga lu tuuti la ñuy lekk lu tuuti la togg bu yowantee dee bay ñaak umu kalsum yëkkati xefam yowante dootu ko mën a lekk de mu jox ko umu kalsum bu ñaagatee ruqeetu daal di sikki xool ko waaw ah, ndeysaan yowante dootu mën a lekk di waaw mu daal yër tibb boobale waaw waaw ah, daal di ko jox waaw yaay yaay ruqiya booba Faatimatu Zahra mi ngi toog ci luppam sallallahu alayhi wa sallam yowante di ko saxal waaw ngir bëgg ngir bëggam ca moom dañoo niroo woon doom yu jigéen yu bari seen baay la ñuy jël waaw yu jigéen doom yu góor yu seen yaay danay soppeeku waaye lii day luy nekk la waaw waaw waaw ba loolu amee yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi doon sëy mooy yaay ah, إله إلا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

garoto شجاع عذره شجاع لا فتاه إلا عليها ولا سيف إلا ذو القفا شجاع شجاع عذره شجاع أنا علي نسبه بين القرى أبو الأمامين كرام بررا شجاع علي شجاع شجاع سجاء متين علي متين متين بدر علي متين سجاء علي سجاء سجاء بدر علي سجاء سجاء علي سجاء سجاء بدر علي سجاء نحن عباد الله li desaan mooy waxtali jaale bi yàlla du juum mukk kon maa ngi jaale euh, mbokk yi faatu fan yi li ko tàmbali ci xalifa général bu Pire Cheikh Moustapha ambassadeur di njabooti Baye Ahmed Cissé bu Pire ku doon dox lu baax ku doon def lu baax yàlla nañ ko fekk aljana yaa rabbi baayam ku neexoon baat la boo ko dig boo gisoon ci ron tàtt bi ci waawoon muy zikar xool yëpp dafay neex di jaale euh, al cheikh Abdul Aziz al ibn koo xam ne dafa dafa yeewu rek doon xalifa ànd ak waajuram te mooy xalifa Babacar Sy yàlla na yàlla taas ci barkeem ànd ak bàyyi taxam Thierno Mansour cheikh al xawm ànd ak bàyyi taxam di turandoom alxaji Abdou Aziz Sy ànd ak magam Thierno Mansour borom daara ji ànd ak magam Cheikh Ahmad Tidiane Sy xilaafam ñëw yàlla jël ko ci biir sutura yàlla nañ ko fekk aljana yaa rabbi waaye di jaale bu baax ki càllaw na ñaseen di alxaji Ibrahim ku liggéey liggéey yu rëy ku wàcc ñaseen tey ah sa xol dana sedd ndeem jullit nga ndeem ku leen yéene jàmm nga ñu ngi ñaan yàlla xalifa bu bees bi yàlla na ko yàlla dëgëral ba fu mu ñu bëgg mu yeggale mbir mu mu yeggale foofale eh, di jaale xalifa ndemeen yi di maam Thierno Aline Dem ci Casaville yàlla na ko yàlla xare aljana njaboot mu fi bàyyi yàlla yàlla aljana muy seen kër waaye ki ci mujj keroog wala waa Touba yi xalifa général euh, kulli murit njobootam am nañ ci wàcc liggéey ñu ngi leen ñaanal yàlla xaadimu rasul teeru leen ci aljana yi gën a kawe euh, Pape Souley Kane di xalifa bu kaneen lew na yàlla yàlla yërëm ko yàlla yàlla jéggal ko kon lii la yàlla bëggoon ma jottali jokk mbokk gi alhamdulilahi rabbil alamin waaye ma jaaral fa dara ngir ngeen delloo seen xel ngeen bàyyi seen xel ci lii ma bëgg a pour taalibe ngeen mën a mucc taraw 1922 1922 ci Kaolack maam El Hadj ci la génnee ak 1922 naka noonu ca Tiwaawan maam Maodo Malick Sy génn àdduna ci benn at lañu bokk génn àddina maam El Hadj Abdoulaye Niass 1922 ci Kaolack maam Maodo Malick Sy 1922 ci Tivaouane yàlla di dem di dem ca at googu xayrul xadim di xaadimu rasul Maulana Cheikh Ahmadou Bamba ci la waxee kenn ci njabootam sëñ Mbàkke Buso ne ko jëlal xalima nga tàggal ma ñaar ñi ci la waxee waxam ñu kéemaane googu Samsun ثم شمس ثم شمس أما شمس غابتا شمس جنت بتي كاولك ثم شمس توب جنت بتي تيواوان أما شمس تي أتوم جنت يا موي 1340 ci ya. lañ faato yalla di dox ba 2017 do dem 2017 la yalla jëlaat khalifa bu ñaseen mu mel ni maamam mu jël khalifa bu tiwaan mu mel ni maamam seen ñaari maam ñoo bokkoon wàcc liggéey 1922 ñoom ñaar ñoo bokk wàcc liggéey 2017 te kii bàyyi taxam lañ ko tuddee di bàyyi Ibrahim kële bàyyi taxam nañ ko tuddee Abdou Aziz est-ce que mbir mu du benn ah taalibe kon bàyyi leen pànk bi taalibe yi xaju leen ci diggante sëriñ si sëriñ si ñëpp yàlla lañu fi nekkal kii Tiwaawan la kii Ceneba la kii Yoof la kii xaadir la kii nangam la kii nangam la déedéet ñoom ñëpp Seydina Muhammad lañ fi nekkal fonk leen sëriñ sépp bugg leen ñëpp weeg leen ñëpp incha allah sëriñ si yëpp nañ leen tufli te ku ñëpp tufli nga tooy de yal na yàlla dimbale ñu yaa rabbi yàlla dimbale ñu di jaay Muhammad waaw moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faatu na Abu Taalib faatu na waaw ana lan moo des mooy moom yonent yàlla Muhammad arab yi dem aj si makka aj makka yàgg na de waaw waaw rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyaqimu salaata faj'al af'idatan mina n-naasi tahwi ilayhim warzuqhum mina s-samaraati la'allahum yashkuruun kon kéefir dañ doon aj dem fa ñuy yow di kaaba ga di gaaral boppam ci xeet yi askan yi waasoy gii di dafa loon dem Muna te mu ngi nan Minan dafa doon dem Muna dafa doon dem Musdalifa dafa doon dem Arafa ee eh, yéen xeetu arab yi ee eh, yéen waasoy ee eh, yéen gii di ee yéen askan yi ah, waaw inni rasulullah ilaykum ah, waaw man de yonent laa jëm ci yéen laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bi mu ne raufun rahim man day la yàlla yónni yonent bi ñu laa laam-laamle fan man la day man maay Muhammad al Mustafa man maay Muhammad al Mujtaba man maay Muhammad al Muntaqa ah, waaw waaw ah, waaw ngi naan ah, yaa ayyuhan naasu inna allaha ya'murukum an ta'buduhu wala tushriku bi shay'an waaw jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale noonu yàlla ba te mooy abu lahab abu lahab fu muhammad jaar di defar moom mu jaar foofu di yàq waaw waaw akal akal akal مصطفى تفضل واو waaw ba loolu amee dafa ne inna allaha naka yàlla day yaamurukum ko ngi leen di digal an taabudu ngeen jaamu ko waaw waaw wala tushriku bi shay'an bu leen bokkaale ak yàlla dara abu lahab di noonu yàlla rek ku ko doonul fu mu dem danga koy xam nit ku tuuti même bu juddoo ci kër gu mag ku bon lay doon nit ku tuuti boo ko dugaloon ci biir kaaba yi da xam ne kii ku tuuti la waaye nit ku mag boo ko yóbboon ci àll bi boo ko gisee da xam ne kii ku mag la waaw yonent yàlla Muhammad ku mag la sallallahu alayhi wa sallam lépp mun ta baax waaw lépp mun ta kër lu mu baax baax nga gis ko ku baaxul askan lu mu baax baax nga fekk ku baaxul xeet lu mu baax baax nga fekk bu baaxul yonent yàlla Moussa alayhi salaam këram baaxoon na waaye Qaaruuna mi ngi fa woon inna Qaaruuna kaana min qawmi Moussa waaw Qaaruuna mi waaye jëriñul ku bon la ku bon fu mu dem ci àddina bi da ngay xam ne ku bon la ku lay doon waaw doonte ci biir kaaba bi la génn ku bon lay doon ya ku yàlla xasa bonal kenn mënu ko baaxal te abu lahab moom ak baay yonante bi ñoo bokk benn baay waaw waaye bu muhammad di woote jëm ci yàlla waaw bu muhammad di woote dañ jëm ci yàlla mu naan inna haza yaamurukum an tatruku diina abaayikum kii daf leen di digal waaw waaw daf leen di digal moo ne na ngeen bàyyi seen diinay bàyyi ban diine baay mooy xërëm mooy xonjoom waaw mooy ay débat déet waaw loolu nag du diina de waaw yonent yàlla Muhammad sonn lool dem fu ñu dee euh, bay'atul aqabal ula at bu njëkk ba am ñu jóge Medina ba ñee ñu daal tuub dem na ci fukki nit ak ñaar ki njëkk jébbalu ci Seydina Muhammad ci waa Medina mooy Saadu bun Zarara waaw waaw kooku moo njëkk a dugg ci diinay lislaam ci waa Medina saadu am ñu naan waaye asad ak saadu sorantewul saadu bun zaraara ak asad bun zaraara yëpp benn bi la yow daal di ko yebal boo demee na nga woote lislaam ba mu demee daal di woote moom tam ki njëkk a ci loxoom kooku la tuddee saadu bun muaz c'est saadu bun zaraara ak saadu bun muaz waaw ah, waaw yàlla yàlla fay saadu yooyu la ah, waaw waaw yàlla seen barke waat suñ kaw yaa rabbi waaw ca déwén sa am ñu ñëwaat waaw juróom-ñaar fukki góor dugg ak ñaari jigéen waaw ci lañ la yonent bi te ngaa gàddaay ah, say mbokk foo dem ci àddina bi booy woote lu baax ñi la waroon a dimbale ñoo lay njëkk a say baay yu ndaw ñoo lay contre say nijaay say rakk say mag waaw ah, moo tax nitu yàlla yëpp dañoo gàddaay seen leen Maodo Malick ah ca waalo la gane àddina waaye teraangam mi ngi ko amee ci waawoon waaw waaw seetal siraaju diin waa waaw ceerno Muhammad Saïd Fuuta fekk baax waaye mi ngi tëdd ci diwaanu Tamba fii wala Casamance waaw seetal loolu li ab sultaanu salaatil awliya Cheikh Abdou Qadir Jilaani waaw mi ngi gane àddina waa ca Niif ca bërëb bu ñu tuddee ca Tibristan waaye teraangam mi ngi ko amee Bagdad waaw waaw teraanga mi ngi ko amee Bagdad abul abbas ahmed bun mohammed bun muxtaar asaalimi ak tijaani waaw waaw moom waa ay nomade la ci Alger waaye mi ngi amee teraangaam waaw waaw ca Faas de yal na yàlla eh, dolli barke yaa rabbi doole ñin ñooñu la yal na wàcc suñ kaw moo tax fa nga juddoo nga woote foofa la yombul waaw ah xanaa du diw diw mooy yaayam xanaa diw diw mooy baayam cëru yàlla bu dikkee dikk na waaw waaw yàlla bu xasee barkeel nitam nga ne doo gis sengam ñu koy daaj yàlla gumbaloo la nga koy dégg te doo ci mun dara hmm? waaw loolu rek la de waaw kañaan gu ëpp bay kañ kañ bay kañ ci bu ma ko dool bu mu ko doon ku ko bëgg a dimbale yàlla bu mu ko am lii ëpp na wa min sharri hasidin iza hasada yàlla ci yàlla musal yaa rabbi waaw waaw waaw moom yoon ci yàlla muhammad sallallahu wa sallam waaw yàlla ne ko nag ah, am na lu ñuy pexe de bu pexe ba sottee du baax de wa iz yamkuru bika lazina kafaru liyusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruun wa yamkurullah wallahu xayru maakirin ah, waaw ñu ngi réunion am ñu nañ ko gas suul ah, na la ñuy gasee suul kuy dund ñii ñoo doon xalaat am na ñun nañ ko yeew ci gëléem mu koy diri ba xiif ak maa rey ko ci àll bi waaw aw yuxriju ko la ñu génnee la waaw ñu ngi defoon seen ndaje booba la ci benn kër gu ñu dee daaroon natwa ca makka waaw ci la ko yàlla ne génnal jëkk bi waaw ci la wooyee Seydina Ali waaw moom yoon ci yàlla Muhammad mu woo Seydina Ali ne ko Ali waaw yàlla de def ma digal naa gàddaay dama bëgg a bàyyi makka dem dem Madina waaw waa makka de liñ may bañ yëpp man la ñu wóolu woon dénk ma seen alal waaw moom lañu wóolu dénk ma seen alal am gafalaan sama kaw lal waaw ah, bu bët setee nga delloo leen seen alal yi ndax xam naa ne tey ci bëri daañu ma song si waaw ah, ci la màkka dajee kër gu nekk nga andi ponkal waaw ah, ponkal yooyu daal di wër kër Seydina Mohamed pour bu Seydina Mohamed génnee ñu dóor ko dóor ni benn góor waaw waaw ni benn jaratam ci yi duñ leen dañ leen di laaj bu laa leen laajee ndàmpaay kenn ku nekk joxe ndàmpaay jeex na waaw waaw waaw lii day lii day lañ doon fexe yoon ñoom waa Makka waaw yàlla Muhammad ci wax demee Seydina Abubakar Siddiq mu ne ko Abubakar yow sama xarit bi Abubakar waaw waaw yow Seydina yow Abubakar yàlla digal na ma ne naa gàddaay waaw génnal génnal njaboot bi kër dama bëgg a wax ak yow Abubakar ni ko kër gi amul kenn ku muy yeewoo bu lu la loo bëgg lañu bëgg loo bañ lañu bañ euh, moo tax nekk sadiq yombul de waaw euh, sadiq yombul de waaw euh, waaw dañ koy faral di wax waaye xarit dëgg-dëgg jafeñ na de waaw soppe dëgg-dëgg jafeñ na toppe moo bëri waaye soppe bëriwul ah waaw toppe bëri na de fii ak yaa ngi neexle ñu àndak ak yow boo naqaree dootoo gisati kenn fii ak yaa ngi am ñuy duggalanteeg yow boo amatul ñëpp daal la jàmbu waaw waaw boo amul a nekk ci kër gi donte yaay taawu kër gi waaw bu ñu séddale dara duñ la ko wax waaw kay am di lañ koy wax bu sa bopp kenn du ñàkk ah waaw waaw kenn dem marché di jënd ñàkk de daf lay dab rek waaw tey mun ngaa bëri la suba nga néew la lool tey mun ngaa néew la suba nga bëri la lool yàlla yàlla may ñu may lew yaa rabbi may goo xam du ñu aju ci kenn di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw waaw waaw abubakar ne ko ndax yàlla may na ma ndigal ma ànd ak yow mu ne axankay yàlla may na ma ndigal naa ànd ak yow waaw waaw yonent bi nag nekk ci néegam ak ali ali ne ko waaw alal gi nga dénk li la yàqal moo ëpp alal bi xanaa mënoo jël alal bi nga dimbalee kooku comme xama ko fooy akkee mu ne aliw xiif rey ma ci àll bi Aliou ma ma ci àll bi moo ma dàqal may jël alalu jàmbur lii mooy maandu ah lii mooy maandu ñu njatamal la fitnaan la teg la musiba ak balaa waaw waaw waaw ngay génn réew mi waaw lañ la dénkoon nga leen koy delloo lii de mooy jikko bu baax waaw ci la ko Aliou nit ñi set sellal ni man moo ma dàqal ma dëng waaw waaw yàq ni ñoom Aliou ne wallahi wallahi ey yow Muhammad yàlla mu la tuddee Moustapha juumul yow la yàlla segg yow la yàlla xent waaw yaay ki baax waaw yaay ki yaay ki yàlla mbiri waaw waaw Aliou na nga sàngoo sama mbàjjo bi ba ñu foog ne yow la waaw yonte yàlla Muhammad ci la génnee daal di tibb suuf di jàng yaasin yaasin alquran hakim innaka lam na ala sirati mustaqim di jàng di jàng dafa yàlla na ma ci moom mu mbay nañ suddan xal bi suddan faax seen aw ba mu laay sëwoon ñoom ña mu teg mu jël suuf daal di ko teg seen bopp ñëpp daal di nelaw bay bay yandoor yaasin lu dangereux la na ngeen ci bàyyi xel yaasin la jàng romb leen te gisuñ ko waaw waaw yaasin mooy tur yàlla bi ñu dee xaxaar yaasin ñett téeméeri miim moo ci nekk ak juróom-benn miim ah yaasin ñetti téeméeri miim ak juróom ak juróom benn miim moo ci nekk mooy toll xaxaaru xaaf ba téeméer la xaa ba juróom la muy téeméer ak juróom alif ba benn la muy téeméer ak juróom benn raa ba ñaar téeméer la muy ñetti téeméer ak juróom benn loo ko dóor danga ko loo ko loo ko dóor danga ko jéngale rawatina ñi nga xam ne ñu ngi tabax na ngeen ko bàyyi xel tabax lu jafeñ la ngeen def ko ngir ñu génn ci biir néegu ñax waaw jamono day dox waaw nañ tàmbale nag bàyyi nàkk nàkkali waaw tàmbale tabax boo bëggee tàmbale tabax te bëgg tabax ba nga yegg ba daloo ko waaw bindal yaasin ci mi mboo yegg nga yaatal ko waaw nga dugal ci yaa qaxaaru waaw daal wax yàlla yow yàlla tabax laa bëgg waaw waaw am na benn garab bu ñu waaw yasmin wala di ko tuddee ndenaat fu ñu ko defe dafay naat boo ko sóolee ci bërëb dem ko tama ba mu jeex tàkk yàlla yàlla barkeel ko yaa rabbi ndena ah xam nga ndena ah séeréer moom la naan sufar naag ah séeréer moom la naan sufar naag wolof di ko tuddee ndenaat bambara di ko tuddee folo ko falaga ak ab daf xadi waaw soose soose moo ko tuddee bala koora waaw waaw waaw pël di ko tuddee buujal faro buujal faro da ngay dagg xob bi wala nga am euh, xob bi law jëm penku nga dagg ci benn bi bi law jëm sow nga dagg ci benn bi law jëm ndeyjoor nga dagg ci benn bi law jëm càmmoñ nga dagg ci benn nga dëbb ko ba mu doon sunguf nga jàmm ko saafara soosali la cay ndox nga sangoo ko la dul ndox nga suul ko fa ngay tabax nga ko tabax de ah, moo dañu naan sëriñ bi fan lay jëlee daaw ñaata sooro ngeen fi bàyyi bàyyi ah daaw ñaata sooro ngeen bàyyi ci dëkk bi juróomi sooro benn ngi nii boo jógee Dakar benn ngi nii boo jógee Kaolack seen Murtada Mbàkke yal na yàlla taas ci barkeem nee na moom balaa muy kontaan buy dugg dëkk mu njëkk a gis sooroo buy génn ci dëkk mu mujj a gis sooroo caati xayul xadim yal na yàlla fay ko kon mi ngi doon le booy jógee Kaolack njëkk a gis sooroo nga soog a dugg ci dëkk boo koy génn nga mujjewaat sooroo kon noonu la ngeen ko def yaasin ñetti téeméeru miim la ak juróom benn miim moo tolloo xaxaaru xaxaaru mooy yàlla moo jéng lépp moo not lépp nga yaatal miimi dugal ci xaxaaru waaw xaxaar nga dugal ci xaxaaru def sa tur wax yàlla li nga bëgg ci tabax ba waaw yàlla r plus 1 laa bëgg yàlla r plus laa bëgg waaw xam naa suba ndenaat yëpp jeex ci àll <laughs> waaw waaw waaw loolu addiya la waaw loolu àdduna na ngeen ko kër yi rafet a rafet waaw dugal ci ay jongo buy njëkk ba pare waaw ngeen jaamu yàlla topp topp farata yi bàyyi bidaa yi yal na yàlla sàmm leen yaay Seydina Muhammad sallallahu waaw waaw moom yonent yàlla Muhammad sallallahu waaw ci la génnee waa Màkka mi ngi wër këram bi bu jógee tuuti gis mbàjjo bi mu ngi juuf ñu ne kii Muhammad mi ngi ci biir. waaw ah, kii Mouhamed mi ngi ci biir fekk Mouhamed dem na am ku leen fa fekk ni hey yéen leen bët set leen fii lu ngeen di def fii ñu ne suuc suuc waaw ah, noppi laay Mouhamed la ñuy tëru mu ne Mouhamed dem man daje naa moom génn na bu yàgg gis leen seen bopp lépp def na ko suuf kon làmb rek nga fekk wokk woggu bopp sa suuf sa sa kawar bañ dawee dugg ci néeg bi daal di ko sàqatoo kañ fu fekk mooy Seydina Ali waaw kii mooy jàmbaar Badara Ali waaw ah, kii mooy Matiin kii mooy karim kii mooy xawi kii mooy sujaa waaw waaw kooku mooy baayu alxasan ak alxuseyn sayida sabab ahlil janna ñoom ñooy waaw sang waxambaane waa aljana alxasan bu mag ak alxuseyn bu ndaw duñu ay seex def leen nef na ngeen bàyyi xel ci loolu duñu ay seex waaw def leen nef waaw waaw def leen nef de alxasan ak alxuseyn waaw waaw Seydina Ali mooy seen baay moo def njàmbaar googale mooy borom kër Fatimatu bintu Rasul waaw waaw mooy borom kër Fatimatu bintu Rasul yal na yàlla fay imam Ali waaw moom Ali dañ koo buum waaw boo demee Irak am na ñaari bàmmeel Kuufa ak Najaf waaw boo demee Afghanistan am na dëkk mu tuddee Mashar Sharif koo tam nee nañ fa tëdd waaw nitu yàlla yu bëri dañoo am na ci seen dund ñii am ñaari bàmmeel ñii am ñette bàmmeel waaw loolu am na ci dund nitu yàlla yi nitu yàlla yàgg nañoo sonn bu leen fàtte Seydina Omar bun Xattaab dañ ko rey dañ koo boom ci biir jàkka dafa ne allahu akbar mu dóor ko paaka ki ko dóor mooy ilaj ñu ko nag ñu ko tuddee di Abu Lu'lu'a mu daal ko jam paaka waaw waaw ndeysaan mu daal ne xàng daanu waaw mu jamaale fukki nit ak ñett waaw juróom-ñaar yëpp dee am ku ko sànni mbaa jom daal di ko téye ba mu xamal dañ koy jàpp mu daal di rey boppam kon Omar dañ koo faat waaw te moo doon ñaareelu xalifa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaw Seydina Ousmane waaw moom dañ koo buum fekk mi ngi jàng alquran waaw jabaram te waaw naa ila daal di tëb ne hey bu leen boom sama borom kër waaw waaw isaan ñu gor ay baaraanam mu tuuru ci kaw oh, ci kaw usmaan noonu lañu dagg noonu lañu coree baatu Seydina Ousmane waaw waaw Seydina Aliou tamit muy génn njël di julli ji waaw ganaaru kër ga kanaara yi yëpp daal di kokole koo mu ne dégg naa li ngeen wax waaw dégg naa li ngeen waaye du ma tere may julli ji de ci la dajeek bun Maljam waaw waaw ci la ko dóore paaka boobale waaw mu ne may leen ma meew waaw ba mu ko naanee rek deret bi daay dagg waaw waaw weex weexu meew balaa la ko topp Seydina Omar mi ngi tudd ci biir Seydina Muhammad moom ak Aboubacar waaye Seydina Ousmane mi ngi tudd Baqiya waaw Seydina Aliou nag mooy borom ñett bàmmeel yooyu boo demee Iraq ñu ne Najaf la nekk waaw boo demee waaw Kuufa ñu ne fa la nekk boo demee réew mu Afghanistan dëkk mu ñu tuddee Machar Sharif ñu ne fa la tëdd de waaw ah, kon bu leen yàlla dénkee ku baax na ngeen ko na ngeen ko toppatoo na ngeen ko bëgg ah, ah, na ngeen ko topp na ngeen ko bëgg na ngeen ko sàmm ginnaaw sàmm bi yàlla waaw hmm? waaw sàmm bi tuddee dañ ko rey Ceerno Alpha Yaaya waaw dañ ko rey ci poro Ceen mooy kàbbala ñu ko di Nouadhibou waaw waaw kelefa saane dañ ko rey omarul muxtaar buum lañ def ci baal bi daal ko acce li bi mu dee waaw ñu baax ñépp waaw waaw ñu bëri ñoom fii la jaar waaw dañ leen a assassiné waaw na bàyyi xel ci loolu bu baax a baax waaw diina gi yombul de déedéet diina gi yombul de diina gi lu jafeñ la waaw am na doomu sëriñ si balaa may wéy am na dénkaane bu ma leen bëggoon a jox euh, gudd wax bi moo tax ma dagg ko mooy muy samay doom di doomu yeneen nañu góorgóorlu topp li fi maam yi bàyyi woon li ngeen di tuddee dóor marto bàyyi leen ko wul leen alal gu lew gént naa la ay jinne di la woon waaw boo ko mënoon waaw doo ko gént sa bopp ngay gént waaw di wax ay nax euh, naxasaale rek di dem ci réew arab yi am na réew yoo xam ne bu njëkk boo ne Sénégal boo ne Sénégal dañ lay yëkkati ci kaw waaye tey boo ne Sénégal nga dañuy dañ lay felek da ngay gàccew waaw wut ay passeport diplomatique ay passeport service wut ay plan juma lay tabax jàkka lay defar orphelinat damay gas satadoo damay gas ay teen ñëw daal di fus-fusal tuuti rek jàkk boo xam ne bu ci fukki nit duggee mu fees bu leen def loolu alal googu da ngeen koy mu a fajoo na ngeen topp li fi bàyyi bàyyoon ak maam yi li ngeen gis nii xëyul sotti de déedéet waaw tey ku gis mbooloo mi ak fi ma toog ne nga dung dungaara ci kaw da nga xam ne sëñ bi ci bànneex la judd ci bànneex la yaroo ba fii ma toog ne déedéet démb ganaar sax aw ko woon démb sareti maam sax aw ko woon dama doon dox fi ba kaw la waaw damaa doon toog bu ma taal sax du ko am waaw loolu sama dund gi dama doon jàngale ci biir mbaar bu ma siggee gattax yi dóor sama bopp waaw te boobu lii ma jàng jàng naa ko de diplôme yi ma yore boobu ngi ko yore ci cosmologie ci cosmographie ci lugal arabia waaw ci ci ci droit waaye gisuma loolu sama ndigal bàyyi rek laa gisoon toog ci wetam mu ne ma toogal sama wet bul dem fenn ëllëg aajo buy faj yaa koy faj sa téeméeru moom lu ñuy tële mu daal ma giñal mu ne wallahi dama ko def alhamdulilah bu mu ko deful di tàmbali na bu muy jëlee eh, waaw ñaanu bàyyi bu muy jëlee ñaanu ndey rek ndax kadi woon na de kaso soo man tëj naa ko tëdd naa ko ay yoon Kaolack bii nga xam ne fii laa yoroo Senghor tëj na ma fii dégg ngeen ko ma nettali li ma jaaxal mooy Senghor moo ma tëjoon fii te man ñu ma jox teraanga gannaaw suba dañuy feexal Senghor man lañ jox teraanga bi fii ci jaxaaw ba def délégation ñu ñëw ne ko ma teew ci man la tëjoon démb tey man la ñuy invité ci bésam xale ndencam yàlla li ci yàlla def yàlla rek moo ko xam kon na ngeen ormool gone yi Senghor mu xamoon ne bu dee buñ koy feetal jaxaaw dañuy def délégation ñu ma wax si ma ko du ma tëj mukk te def maa tooñ Senghor dafa tëjoon ko ñu tuddee waar jooju njaay yi ci kaw la xam ngeen ko waa kaw la yëpp mbeera Senghor jéppi ko bàyyi ko ba Ablaye Wade dikkee ñëpp bàyyi Senghor wuy ji Ablaye Wade mu ne Babacar Ba banque banque ku la neex defal na Saalum yëpp wuy si ma ci la tàmbalee di joxe ay oto Scania ay Berlier ba mu des benn góor bañkat ñu ko di Ousmane Diaw Ngisali yàlla na ko yàlla fay boo jógee gendarmerie nga jëm ci noonu ABC këram fa la nekk foofu la PDS njëkk def congrès boobu Xara Njaay mooy numéro 2 bi man ñu def loolu foofu conférence di waaw ma dal ci Senghor na dafa ñëw ngir yàq réew mi tey bisu tam xarit la xale yépp jàngi nañu te bu doon Noël la kenn du jàngi te Noël juddu yoon Yàlla Isaa la tam xarit mooy suñu premier janvier lu tax duñ ñu may feet gàmm mooy juddu xayu xalqillaahi ñuy maye Noël juróom-ñett fan te gàmm duñu maye benn bés

yow sax yow 5 pour cent catholique yow de defoo njàmbaar Senghor ne ko mënuma soppi Sénégal def leen ay catholique waaye mën naa leen def ay jullit yu seen diina loolu am na tey ah loolu am na de tey xale jullit yi koo ci laaj général de xam na ko mooy mbaay boo ko laajoon date de naissance waaw waaw Ousmane Danfodi xam ko boo ko laajoon tey ah. jooni aliday bi faatu démb gitaar kaddu ma boobu mu wax la lépp waaye boo ko laajoon tey mu xamal bu sëy waa fan nga xamu ko kon li sa nga bëgg na def na ko damaa wax loolu ba ma yegg suñu kër oto police daal di gaare eh, ñu pam ci matin sànni ma ci biir kii eh, doo paas de waaye du bam neex de <laughs> doo paas waaye amul bam neex de man na noonu nga ci biir <laughs> waaye kaw ma fekk sama wëllëre bàyyi bu ma leen fàtte mukk yal nañ leen fekk aljana alaaji góor gi wage ca kër Fodé yal nañ ko fekk aljana alaaji jibi kama ci gàññeel yal nañ ko fekk aljana waaw waaw alaaji dut sëy ci garabu law bi kaw la waaw njawar géy waaw ci aranceema kaw la waaw saatu jaw ci bustaan oolu sàmm ci bustaan alkaati yépp taxaw keroog waaw ci la cheikh lay cheikhu naa lay moo nekkoon chef protocole bu Senghor mu a Senghor def nga lu ëpp de lan la doomi góor gi nga téye de ñu def négociation ñu bàyyi ma waaye gën a dangereux loolu te fi ma ko def mooy police ndoorom na ba taxaw ci fi di gay na ngay doon waaw a wax ceeb daal di jàppaat dugal ci kaso bi ah taw yënguwaat Senghor ne boo demee Cheikh Ly nga wax sëñ bi doom bi dafa doom bi dafa wéradi na ko yóbbu kabono wala faam man xaw ma ko mooy kabono ci bi <laughs> faam moom xam naa ko waaye xaw ma kabono waaw sëñ ne ko bu ngeen demee ngeen wax Senghor man a dof de waaw li Senghor yi def te baaxul moom lay nettali rek kon mbokk yi li ma bëgg ci wax ji mooy na ngeen xam ne woote jëm ci yàlla musta yomb woote jëm ci yàlla musta neex kaso mi ngi ci xiif mi ngi ci mara mi ngi ci xaste mi ngi ci saaga mi ngi ci tuuma mi ngi ci dooy di la mi ngi ci lépp nga ko mun bu yowmal xiyaamatee yonent yu dakka leen garaat sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla fay yàlla yonent yàlla la génnee mi ngi ànd ak ñu ngi daaw waaw waaw ñu ngi làqu am na benn xunt bu ci ñu ko déraaru sawra am ñu ko déraaru suur ci lañ duggee ci biir sëy naa ko bu ko dugg ca biir ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar moo baax dafa njëkk a pax bu mu gisee mu saañ ko dagg dara ci mbubbam daal di ko dugal ci pax moomale waaw daal di ko dugal ci pax moomale waaw dem des benn pax ci testanam daal di wéer Seydina Muhammad ci kaw dënnam ànd ak ñàngoor mi ngi ci biir ba mu ko màttee tooke bi yéeg mu ñàkk ba ñàkk bi rogaat ci kaw Seydina Muhammad mu ne ko xanaa dafa am lu la fett mu ne ko waaw ba mu dinee tànkam mu gis ponkal ba daal di génn yàlla yàlla fay abubakar siddiq benn jëfam joojale bu ko yàlla fayee ummatu muhammad yi mun nañu mucc waaw waaw ci yàlla saxalee foofale benn garabu kénkeli baa waaw ngeen ko tuddee sexew waaw aw lënd daal di ñoo lënd mooy ay jargoñ waaw aw pitax daal di ñoo tàgg waa màkka di xeeñtu tànk ba ba yegg foofale ne ah ah man de gisatuma ma yi du jomb ñu ngi ci biir de Muhammad dafa rëy pexe Abubakar kii de wax na dëgg waaye dëggam bi yàlla bu ko yàlla def dëgg yàlla na am fenn am ku ne ah Muhammad de duggul fii gisoon ni buumi jargoñ yi poussière waaw ah, bu duggoon fii buumi jargoñ yi dañuy dagg de waaw ah, buumi jargoñ yi dañuy dagg de waaw ah, te garab bi dafa yëngu te bu yëngoo tàgg bi daanu te bu tàgg bi daanoo waaw nen yi dafay toj te bu nen yi tojee <coughs> gannaaw gi dootuñ euh, fi tax yi dootuñ nekk fii waaw ba loolu amee moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoo kon la waaw ndeke bu leen fàtte Zakaria dañ ko reyoon te yonent la woon Yaxya dañ ko reyoon te wala Daniel dañ ko reyoon te yonent la waaw yàlla yàgg na natt baax de yàlla na toog yàlla yàlla may xale muñ jafe ñu ko jafe yombal daal di ñëw lu yombal yomb it jafe ñu la di dikkal kon dëgg jafeñ amul yombal amul ki yàlla bi def jafeñ ak yombal moo am waaw waaw ngeen gën a nuur ngeen gën a ci yàlla bu leen bàyyi yépp ne bon na déedéet lu biir bon bon da nga fekk lu baax bu leen bàyyi yépp ne bu leen jël yépp ne baax na lu baax fekk lu bon ci waaw teranga la woon Moussa nabiyu la Moussa rasul ulul azmi la amoon na fukki àlluwa yu yàlla bind Moussa waaw waaw Moussa amoon na tawraata waaw waaw moo tax ñu naan tawraata Moussa injil Muhammadu waaw waaw yëkkati leen ma dal tuuti Daawuda Suleymaan ah sama gars yi allah naa wey baax na uh, loolu am na de kër kër Firawna bonoon na lool Firawna kenn gënu ko woon nekk kàccoor Firawna dafa dóor dënnam ne ana rabbukumul ala bu yàlla amee it man maa ji gën a ñi xam yàlla buñ ko waxee waaw dëgg la de waaye ku xamul yàlla bu ko waxee mooy na yàlla waaw ñi am fanaaw فناء في في الأسماء فناء في الصفات فناء في الأفعال وبعد الفناء عين البقاء ñoom day buñ ne may yàlla wax nañu dëgg de waaye fi xana ba mu ko waxee waxul dëgg boppam waaw ah, ku xamul yàlla ah, waaw waaw ah, sa jaamu yàlla xamal mu mel fa qabla an taabuduni فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني moo tax moom Baay Mawlana Cheikh Ibrahim mi ngi wax ci téeréem boobale naan xalaqtu moom Baay mi ngi naan man lam yanal marifatal rahman daa at amaaruhu manal azman xalaqul xalqa li yaabuduni yaani bi yaabuduni yaarifuni moom noonu la ko firee wa ma umiru illa li abdullaha waaw waaw wa ma umiru li abdullaha waa illa li arifullaha la de ku xamul yàlla loo xamul fu mu nekk noo koy wutee xam yàlla lu am la de gis yàlla lu am la de waaw waaw ñi koy diingat waaw ah, dañoo dajut ak seexul wasila bu ko xam rek cheikh abdul qadir jeylaani sultaanu salaatinul awliyaa yi ah, watat du afaa أبن الفقراء ها بركة الأنام مصباح الظلام شمس بلا أفل دور بلا مثل بدر بلا كلف بحر بلا طرف واو واو قطب العرش والكرسي والله والقلم قطب الملائكة والإنس والجن waaw waaw moom day tolloon na foofale sa tamit te mooy abul abbas ahmadu tijaani waaw al qutbu rabbaani waaw cheikh day maftu billahi woote woon na ko de waaw waaw woote woon na ko waaw seexu tijaani waaw dafa doon yàggale góor ñi ci yàlla waaw waaw kon xamoon nañ ko na ngeen bàyyi foofu xel bu leen féewale diggante góor yàlla yi waaw waaw déedéet gis ngeen Cheikh Abdul Qadir Jeylaani qaddasallahu sirahu ñeent fukki doom ak juróom-ñeent la ko yàlla mooy quarante-neuf ah, ñaar fukk ak juróom-ñaar yëpp ay góor lañu ñaar fukk ak ñaari ñooy ay jigéen taawam mooy Abdul Wahab waaw am Abdul Aziz am Abdul Jabbar ba mu génne àdduna ñoom ñoo ko toppatoo subhanallah ngelaw bu bàyyiwul gën ndax dana bàyyi kuur wallahi du bàyyi kuur waaw waaw du waaw li bàyyi li yóbbu ponkal yooyu kan lay bàyyi fii waaw waaw te Cheikh Abdul Qadir Jilani waaw waaw waaw amaan kay ñaar fukki doom ak juróom-ñaar yooyu lépp moo leen suul waaw ah, waaw ba mu des fukk ñett doom yu jigéen ya waaw ah, ñaar fukk lañu ak ñaar waaw ah, moo leen suul ñoom ñëpp ba mu des caatam mooy Shamsul Huda moom la tuddee yaayam te mooy jumaana kon maa ngi ziyaara jumaana yaayam dafa bëri tur ummul xayr ngir yiw yi nekkoon ci moom daañ ko tuddee Fatimata Zahra ci maamam ndax dafa doon am doom waaw waaw te moom du gis aaday jigéen moom ba amee juróom fukki at la meññ Cheikh Abdou Khadir Jeylaani lii yombul kon ñi bëgg doom yàlla yàlla may leen doom yaa rabbi doom yu góor doom jigéen doom yu tekkate barke ñu fekkee yaa rabbi waaw waaw samsu daa boobale mooy caatu Cheikh Abdou Qadir Jeylaani waaye mooy maamu Mouhamed Fatah bi nga xam ne mooy maamu euh, Abul Abbas Ahmadou Tijaani kon taalibi xajul foofu la waaw nañu bàyyi nitu yàlla liñ leen di féewale diw moo raw diw moo raw diw waaw déedéet kenn ci ñoom waxu ko déedéet déedéet yàlla yàlla fay yàlla ya rabbi waaw bañ def ba génn nag Seydina Muhammad ne Aboubacar sa benn gëléem bi jaay ma ko damaa bëgg sama tukki bi mu barke waaw kon bàyyi leen xel ci li ma waxoon maarifat billaahi am na de waaw waaw axan kay baax yépp amoon na baaxul bu Muusaa doon jaamu yàlla woo di waare ci yàlla waaw woore di woote di waare ci yàlla Qaaruna dafay dajal ay xale ñuy dóor ay ndënd di fecc rek ba du dégg ba léegi da ngeen koy gis de mag yi nekk ci jàkka yi di wasifa xale yi ubbi seen baaful yi di kundung kundung yi ba du ñu xam lu ñuy sikam sax nga bugg am mag nag bugg am jàmm doo am jàmm yaa ngi soloon say bàyyi démb nga mag yàlla boole la ku la sonnal waaw waaw lii dong la lebtoo faytoo waaw kamatu diinatu daanu ni nga leblewoon lañ lay fayee waaw waaw moo tax borom maqaamatul xarir buñ ne bon na waaw bul bàyyi lépp seetal da fekk lu baax buñ ne lépp baax na bul ca daanu am na lu bon kër Firawna bonoon na waaye Aasiyatu ñu fa nekkoon Aasiyatu moo nekkoon jabaru Firawna daraballaahu masalan lazina aamanu imraata Firawna jabaru Firawna jullit la woon daanaka ñi doon dimbale Muusa ba Firawna rey ko ci la bokk moo tax borom maqaama mi ngi naan wajur bil mihaali walaw bil muhaali ودع ما يقال وخذ ما صلى وجل بالمهال ولو بالمهال ودع ما يقال وخذ ما صلى وجل وجل وجل في المهال ولو بالمهال ودع ما يقال وخذ ما صلح واو واو lii la de waaw ñu nekk ci biir waaw ki leen doon andil xarala dëkk ba mooy doomu Seydina Abubakar Sadiq di Abdullahi ibn Abubakar ak kan waaw ah, waaw mooy Abdullahi eh, mooy eh, waaw ci ñaar Abdullahi ibn Fuhayl waaw waaw kële moo doon sàmm ay jur di ko andil muy rotti di naan de boo gisee lu nekk bu ma koy wax ma wax mu leer dingat kat dafa yomb waaw wax na nan nga wax déedéet damay wax li gën a siiw wax li gën a wér tamit ngir ëllëg booy gëstu boo ci gisee nga xam ne jamono passé woon na loolu mosoon na xew waaw waaw waaw waaw ci lañ soog a génnee ci ñetteeli fan ba ci bi war benn Abubakar raw benn mu ngi mu ñu nga jëloon ko ñu tudde Abdullah bun Urayqit kooku nekkuloon jullit waaye moo leen doon won yoon bi ñu jaar ci yoon bu sori la waaw te mooy quatre cent cinquante kilomètres yonte yàlla Muhammad génn na mu ngay dem waaw tukki baax na de yonte mi ngay tukki ngir yaatal diinaam waaw waaw gàddaay na mbokk yi gàddaay nag ñett la waaw waaw bàyyi leen ci xel gàddaay ñett la de bu njëkk ba mooy li sëriñ na defoon sallallahu alayhi wa nga nekk ci dëkk boo xam ne sa diina mi ngi bëgg a suux nga génn rawale sa diina ah, waaw ah, waaw waaw ko foo xam ne sa diina dina mucc waaw ah. <laughs> jël bi jël na ma ma yeggale mu leen tuuti rek waaw ma dugal ko biir Medina waaw ñu daal di nodd julli bàyyi leen ba ma dugg Medina buñ jullee ñu del siwaat ñu weyaat rek waaw waaw alhamdulilah ba loolu amee waaw waaw tukki ba gàddaay ngoog nga nekk ci dëkk boo xam ne sa diina amul doole nga gàddaay fu muy amee di doole ni Muhammad defoon ko gàddaay la wala nga nekk waaw ci jikko yu bon ngay fen di naafeq di ràmbaaj di karabaare di sàcc nga tuub bàyyi loolu dem wuy ji yàlla kooku gàddaay la wala nga nekk ci dëkk boo xam ne eh, diina xas fa am doole ngay gis feneen amul mbooloo ngay dem foofale te ñu bëri ci yéen loolu ngeen def yéen ji fi toog ñépp am ngeen ay sëriñ ah ñi fi toog ñëpp am nañ ay sëriñ waaye xam nañ ne dëkk bi dafa tuuti amul juróom fukki kër sax déedéet saañ boo gisee futur bi toll ak fi mu toll du benn boo duggee ci jàkk ji da ngay wéet mag ñëpp faatu nañu xale yi jàng nañu métier ñu ngi ci daara yi dëkk yi boo fi nekkee bëccëg dafa wéet yàlla na yàlla andi mbooloo mbooloo muy jaamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla andi fi alal yóbbu ëllëgee bu ngeen ñëwee ngeen fekk ay dalwaay gan yaa rabbi waaw waaw gàddaay moo leen fi andi ngir bëggal mbooloo boo dikkee aljuma fu nekk ñoo ngi jóge ay Kaolack ay Dakar di julli si juma ngir bëggal mbooloo waaw ah, coono googu yàlla na wuti seen coono yowmal xiyaamati yaa rabbi yonante bi mu ngi gàddaay waaw ah, tukki baax na de waaye di def na ngeen ko moytu keroog maa ngi nemmeeku juróom benn junni nit def nañ ci géej gi ren waaw ah, waaw yaa ngi naan sama doom yegg na mi ngi noos fekk sa doom jën yi lekk nañ ko bu yàgg ndeysaan sarax nga ba mu jeex jaay nga say diine dem ci jabarànkat yi jaay nga say long-long dem ci déeba débi waaw waaw fekk nga ki jën lekk na ko bu yàgg yàqu ma xel yi de dama leen di jàjj waaye du yéen a ko def suñu am détail ñoo ko def li ngay ci biir bool bu nekk ci kaw bool looy ubbee bool boo gisee xale di dem Europe lañ fay wuti dañ ko amul fii lañu wuti ko buñ ko amoon fii duñu mos a génn mukk waaw kenn bëggul des àll waaw ba léegi maa ngi dem ci souvenir boo xam ne wallaay souvenir bu métti ci man la booba maa dañ ma jox benn thèse dafa am benn ngelaw bu ñu tuddee libra libérador mi ngi jóge Alaska ca kaw Canada dafay traversé océan Atlantique mu jaar diggante Maroc ak Espagne moo doon andi taw bi ca Tanja jaar ci kaw euh, Constantina Annaba Alger jaar ci kaw Tunisie Safakis euh, Belzerte daal di jaar ci kaw Libi Sibrata Zawiya Tripoli Sirta Benghazi jaar ci kaw Égypte Askandria dem ba Dimyaat dem ba boori Jidda moo doon ngelaw loola léegi amatul doole dañ ma defoon de dama doon recherche ci njaboot ci ci ngelaw loola ma nekk ci biir bato nag maa ngi yore samay jumelle maa ngi seet waaye dama jékki-jékki ma daal di gis ci biir géej gi loo xam ne gaal la nit ñaa ay nit a ngi ci